bismillah kon ñu fàttali ne ba tey rek ñu ngi ci téere bi nga xam ne mooy maxaaliqun niiraan wa mafatixul jinaan nga xam ne moom it sëriñ Tuubaa moo ko def mu jëm ci tasawuf ñu toll ci li nga xam ne mooy dars ñetteel bi tollu fi sëriñ bi di waxe rek ni nit ki war a àndanteeg say xoom bañ ko woon gannaaw wax ne fa kullu man qabla wusuli ihtazal walam yurabbihi murabbin qad kamul fa innahu yaxudu fi bahri rida wala yajiu minhu sheyun abada li annahu yaquuduhu sheytaanu wan nafsu wal hawa kama abaano wax na dëgg sëñ bi nee fa kullu man képp koo xam ne i'tasala beru na bàyyi say xoom bi ko doon womat ci yàlla xabla wusuli yi njëkk ak àggam njëkk ak àggam ci sunu borom subhanahu wa mu wëlbati ko rek rekki ku ci say xaw man ko gannaaw walam yu rabbihi tar tarbiyewu ko murabbin sayxul murabbi xadd kamul boo xam ne mat na sëriñ bi nee na fa innahu wér ni ne kooku yaxuud mi ngi xuus fii bahri rada ci géejug alkande wala yi jiw te du dikk minhu ci loolee shay'un dara abadan ba faw sëriñ bi nee képp koo xam ne daal wàcc na sayxoom te egg jotu koo eggale ci sun boroom te kon mooy rekk kaneen tarbiyewu ko walam yu rabbihi mu rabbin xad kamul nga xam ne kon sayxum tarbiyewu ko tarqiyi ko ci sun boroom kaneen it jaarut ak moom faneen fu mel noonu nga xam ne kon ci yoonu boppam ci la ne sëriñ bi nee kooku mi ngi xuus ci géejug alkande fa innahu wér ne kooku yaxudu mi ngi xuus fii bahrada ci géejug alkande te nee na jiw du dikki minhu ci loolee muy sàkku say un dara abadan ba faaw ndax yoonu yàlla mooy loo xam ne kenn mënu koo làmbatu te baloon nga koo xam sax nga suubu ca boo ci sóobu ba dox ca diir rek ci ngay xam ne lii doonu lu kenn di làmbatu làmbatu ko du tax nga daj ko mukk fun lay jaarale rekk la te ku ko xam rekk la fay jaarale li annahu yaquuduhu sheytaanu wannafsu wal hawa kama abaano neena li annahu ngir ndaka moom yaquuduhu dana koo mat asheytaanu seytaane wannafsu ak bakkanam wala hawa ak bànneexam kama abaano ni ki ñu ko birile neena ki nga xam ne dafa sóobu yoon yàlla te àndantiwu ci ak sayxu ci géeju alkande ci lay xuus te du ñibbisi ak dara lu am njariñ ndax nee na rekk moo koy womat ak bakkanam ak bànneexam ndax du mën a të noon yooyu sa yoxo rek la mën a àndanteel mu jéggi moom pakk yi ba mucc mën a egg ci sunu borom subhaanahu wa la leeral nañ ba tàyyi nag ne egg ci yàlla rek mbirum xel la ak xol ak roo waaye jibluwuñ ci sax jëm yoo xam ne dañoo naaw jëm fenn mbirum xel la ak xol ak li nga xam ne tam mooy ruux wal yaalam mën na xam kullu zakiyin wa balit ann allasi yuxaalifu alxaqa tarit te wal nag batul abdi bi tawxiidi wal fiqhi xan tasawufin mu jiidi ne wal yaalam mën na xam ci lu wér kullu zakiyin képp kuy boroom ak yow wa balitin ak ku gàtt xel ne lii may bëgg a wax na ko ñëpp boo ko xam mooy ann allazi wér na ne ki nga xam ne yoo anna lësi ki nga xam ne yu xaalifu daa wuuteeg alxaq dëgg taridun ku ñu dàkk lay doon nee na képp ku wuuteeg dëgg rek danañu ko dàkk du egg ci sunu borom subhaanahu wa taala wal xaqu dëgg nag bat ul abdi mooy tàmbalik jaam bi bi tawxid ci li nga xam ne mooy tawxid muy wéetal yàlla wal fiqhi ak li nga xam ne mooy fiq muy jëfe santaane yàlla an tasawufin ak li nga xam ne itam mooy tasawuf majidun bi aji tedd neen liy dëgg nag mooy jaam bi tàmbali jàng ba xam aslëf ci tawxiit jàng ci fiq itam ba xam ndaka lay jaamoo boroomam jàng yitam dara ci tasawuf ba xam nan lay sellale digganteem ak boroom subhaanahu wa taala nga xam ne kon jaam bi balay suubu yoon yàlla ci ay azkaaram wane ne daal di dox jëm ci suñu borom nee na fekk mu jàng ba am bu xamul lépp tawxiid mu am ci lu ko doy ab yóbbal jàng lu mel ne mawaaxibul quddus ba nga xam ne dana am pas-pas bu sell ci digganteem ak boroomam ca na ma koy jàppe ak na ma koy fase jàng itam li nga xam lu mel ne li nga xam ne mooy jawharu nafis ak yeneen téere yi ci topp ba am ci fiq loo xam ne mboolem li aju ci julli ak i àtteem ak koor ak yépp rek dana xam leen lu ci nekk nañ koy defee xan tasawufin ak li nga xam ne mooy tasawuf nga xam ne lu mel ni téere bi ñu yor di ko jàngate muy maxaaliqul niiraan tasawuf lay jàngale lu mel ni masaalikul jinaan tasawuf lay jàngale kon nee na nit ki balay suubu yoon yàlla na ab yubal ci tawxiid am ko ci fiq muy ni ñuy jëfee santaane yàlla yi am ko ci tasawuf muy ni ñuy sellale su ko defee nag mun taxijan muy aju suubu nag yoon yàlla te mazhaba ahli sunna mu àndante ci ak ahlu sunna mooy jaar ci ngir mi nga xam ne ci la ahlu sunna wal jamaa nekk moo tax mu ne maal jamaati ànd ak mbooloo ma watil ka loolu al junna mooy pakk ba mooy pakk bi nga xam ne moo koy mën a fegal mboolem xaq baat yi ak jafe-jafe yeeg gàllankoor yi nekk ci yoon wi kon neen na jàng ba am dara ci tawxiid ak fiq ak tasawuf boo nag mën naa suubu yoon yàlla tam jaar ci yoon wi nga xam ne ci la ba yi jaaroon dox jëm ci seen boroom subhaanahu wa taala ma sëriñ bi soññee bu baax ci li nga xam ne moom mooy xam-xam wax ne fa saare saarihu lil ilmi ajmaina li wajhi zil jalaali qaasidina qabla tasadduri wal infiraadi bin nafsi wal atbaaci fi tamaadi wax na dëgg nee na fa saarixu na ngeen gaaw yin ñëpp rek lil ilmi jëm ci xam-xam ajmaina mboole seen neen yéen yëpp maa ngi leen digal ngeen gaawantu sàkku xam-xam te sàkku ga itam nee na xaasi dina ngeen jiblu ca rek li wacc zil jalaali ñeel jëmmi borom màgg gi muy sun borom subhanahu wa taala nee na yàlla rek na leen tax di sàkku xam-xam muy nam ma xam ak jëfe dana wax ci kanam lan moo tax nit ki war a sàkku xam-xam nee kon na ngeen farlu ci sàkku xam-xam xabla tasadduri njëkk ngeen di gongeku di génn tasadur mooy ngay génn di feeñ na fekk ne na nga am ab yubal ci xam-xam ba leen lu ci nekk lala ca war nga xam ko wal infiraadi ak ku wéetoo mooy njëkk ngay wéet bi nafsi ak sa bopp mooy njëkk ngay génn dem ci àll yi di wane ne dangay ngay wéeti da ngay jaamu yàlla wala ngay wéet sax di def ay xalwatu ci biir dëkk bi la ak biir kër gi yooyu yëpp daal na fekk ne na nga xam li nga war a xam wal atbaaxi wala sax ngay njëkk ngay am ñuy topp sa ginnaaw di aju ci yow nga war leen a wommat na fekk ne na nga xam fi nga war a jaar ba yow it nga mën a xam fa nga leen di jaarale fittamaadi ci sax gam fittamaadi ci sax ga kon nee na njëkk daal ngay génn di feeñ na fekk nga xam li nga war a xam léeg-léeg rek nga gis lu mel noonu koo xam ne day rëcc rek daal di génn feeñ lu ko neex rek wax ci média yeeg fépp rek te fekk lam war a xam wax dëgg yàlla xamu ko ba su àddoo rek képp ku bokk moom daal di am kersa loolu yépp génn te génn jotul rek moom moo koy waral nit dafa war a jàng xam lam war a xam wéet boo ko defee dem wéet ci àll ba wala ci sa biir kër te fekk la nga war a xam xamoo ko itam danga egg ci loolu na nga koy jëfee du bokk na la ko diine sant te ñàkk xam a koy waral ay nit topp ci sa gannaaw it te xamoo la nga war a xam dana jur nga jaaral ak ñoom ci mbooy gi te lool it ëpp naa def rawatina koo xam ne ñay topp ci ginnaawam doon sax faagu téeful boppam day juddu fekk ko fi ñu toppoon ay maamam toppoon ay baayam nga xam ne faaw ñu topp ko ku mel noonu moom daa war a xam ne xam-xam ci rëma bu ñëpp maase woon ci bañ a jàngit daa war a xam ne moom jàng rek mooy war téefam liñ koy faral di misaale rek teen moom faaw ñu yaakaare ko ndox kon ku mel noonu faw rek mu war a jéem a xam dëgg la war naa xam ngir ittee boppam ndax lenn lu ne mu xam na mu ko war a defee waaye war naa xóotal xam-xamam bu baax itam ngir ñu aju ci moom lépp lu ñu ittewoo xam ci wàllu diini moo mën leen koo xamal kon loolu mat a bàyyi xel la. sëriñ bi wax na is ngir zullumaatu bidaati ixtiqaadi takku fa anwaar tibaa al wax na lu am solo nee na zullumaatu bidaati ixtiqaadi lëndëm lëndëmi pas-pasi bidaa takku fa day fekk anwaar tibaa al leeri topp aji gindee maanaam sëriñ bi dafa la misaal bidaa ne la lëndëm la sunna muy topp ci sunna si yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne la leer la kon biddaa lëndëm la sunna leer la mu ne pas-pasi biddaa nag lëndëm la koo xam ne day fekk leer yi nga xam ne moo nekk ci topp ci sunna si yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu mooy waxin wi kon leer mooy sunna sunna leer la biddaa lëndëm la bidaa nag boo ko toppee kon yaa ngi ci lëndum goo xam ne dana dox sa diggante ak leer gi nga xam ne yaa ngi ko mënoon a tibbe ci topp ci sunna si yonent bi alayhi salaatu wasalaam te loolu lépp rek jàng moo la koy tax xam moo tax sëriñ bi jàll ba tey di wax ne woo man nahaakum an taallumi fa nahyuhu ila dalaali yantami id kullu man fi zamani manaa min attaallumi fa innahu daa sëñ bi nee na man képp koo xam ne nahaakum tere na leen anit taalumi walis xamlu képp ko dox seen digganteeg sàkku xam sëriñ bi nee na kookee def fa nax yuhoo teram googee yan na ko askanale ila dalaale jëmee ci ak réer ku bëgg dox seen digganteeg sàkku xam-xam daal xam leen ne ku réer la te bëgg leen a réeral lu tax mu ne is ngir kullu man képp koo xam ne manaa tere na fisa zamani ci jile jamono mina taalumi ci xamlu fa innahu wér ne ne kooku daa woote na li bidaatin jëme ci bidaa chaniatin bu ñaaw sëriñ bi na jamono ji képp ku ciy tere am njàng di dox seen digganteeg sàkku xam-xam ma ngay woote jëme ci bidaa boo xam ne rafetul isgir al amalu jëf illam yakun ndéem nekkut bil ilmi di tege ci xam shaabahu kon rax ko xalalun ak yàqu ndax nee na jëf bu ko xam-xam la dul rek doo am njariñ léegi nag moom it jamono soppi ko na ba ñu baree bari rek defe nañ ne moom am njàng day tax a ñàkku taalibe fekk ci dëgg-dëgg ak am njàng moom du def lu dul rek jox la ak taalibe def la it ngay ab jullit hmm. ñàkku taalibe moom kenn du ko jëli ci njàng am njàng moom du xañ kenn ak taalibe am njàng moom day wara tax nga xam Sëriñ Tuubaa day tax nga war a xam yonent bi alayhi salaatu wasalaam day tax nga war a xam suñu borom subhaanahu wa taala nit ki saa xamul rek ci lëndam la nekk day làmbatu te làmbatu moom wóorut wax na ko is ngir amalu jëf ci boppam in lam yakun dem nekkut bil ilmi di tege ci xam rek saa boo rax ko xalalun ak yàqu mooy du mën a baax fal ilmu xam-xam wala amalu ak jëfe la nga xam jëw xaraani ñaari gànjar lañ nee xam ak jëfe ñaari mbir la yu am valeur te it yejjilu baan yi dañuy ñoddi li xayriyat daare ni ñeel yiwu ñaari kër yi muy àddina ak àlaaxira nee xam ak jëfe lu waay am rek loola ko ko may te xam mooy nga xam li yàlla digle di ko def te jëm yàlla rek tax xam itam li yàlla tere nga di ko bàyyi te jëm yàlla rek tax loolu mooy xam ak jëfe te lu waaye am rek moo ko ko may ndax nee na mooy ñoddi yiwu àdduna ak àllaaxira wa ashraful asleni li gën a tedd ci ñaari cosaan yooyu nag ilmun mooy ak xam xuddima goo xam ne jiite lef na ko kama ataa ndik mu dikkee bihi ci loolu xadiisun ab xadiis xadd sama boobu yëkkatiku na ñene soo doon laaj nag jëmmi xam ak jëfe lan moo ci gën subaa dañ lay wax ne la xam moom moo gën jëfe maanaam xam moo gën a kawe li nga xam ne moom mooy jëf ndax is ngir kullu man kullu aalimin jëpp aji jëf kullu aamilin jëpp aji jëf bilaa ilmin ci lu ak xam yuraagu def na ko gis nee na kookee fa sa'yuhu jëfam ja mislu habain kem ab pënd la nusira boo xam ne wisaareef na ko nee ne dafa tolloog jëpp jëf joo xam ne nit ki mi ngi koy jëf te xam-xam la ko tigu ko ci xam-xam rek mook pënd bu wasaaroo nee na ñoo yem àtti ndax boo xamul li ngay jëf doo ko mën a jëfee ngir mu dëppoog na ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngalee te soo ko defiwul na nga xam ne na lañ ko soxlaa du la amal njariñ moo tax mu ne jëpp jëf ju la xam-xam rek nga xam ne defiwuñ ko nañ ko war a defee suwaa moog pënd ba ñu wasaar rek ñoo yem waaye itam nag mu lay wan ne xam kon li muy ëpp ëpp njariñ xamal ne amul benn valeur bu dul jëfe xam-xam li muy am am njariñ jëfe rek mooy tax mu am njariñ mooy waman képp koo xam ne xawaa làq na man xam-xam walay sa yaamalu te du jëfe bihi ci loolee mu xam moom it fa innahu wér na ne moom ximaarun mbaam rek la yaxmilu moo xam ne daal sëf ay téere nee na looy bare bare xam-xam te jëfewu ko it moom mbaam mu sëf ay téere ñooy yem ndaa mbaam mënoon ngaa jël gaali téere sëf ko ko mu yanu lu am njariñ te yoonam nekku ci kon wa man xawaa ku làq ilman xam-xam laysa yaamalu te du jëfe bii ci loolee mu xamit fa innahu ndaka moom ximaaroon kem mbaam la rek yaxmilu mu yenu ay téere kon jëf moom mënta ñàkk incha allahu taala buñ del siwaatee rek gën koo yaatal bu baax